Covid bi mhm. euh, ci anam yu méttee métti man it ma bëgg tamit euh, laay wax sax nga del si yow ci li nga xamante ni moom nga jot dund ci Covid bi waaw jërëjëf Fatou Kiné mhm. li ma jot dund ci Covid bi soriwul euh, Leyla li mu doon wax sànq it foo ko jëlee cas communautaire <laughs> defe naa ko de <laughs> xam ne man tamit dama am liggéey boo xam ne dangay ngay dem a dikk mhm. fi may liggéeyee dëgg la que suñu suñu patron moom vraiment dafa yeewu nekk ci mbir yi bu baax donc daf ñuy jox chaque fois ay masques donc foofu moom dañuy distribuer ay masques dañuy distribuer ay gel chaque fois day am ay communiqué donc euh, ci fànn boobu moom lépp jaaroon na yoon waaye léeg-léeg da ngay da ngay da ngay génn léeg-léeg da ngay génn gis ay nit te liggéey bi da koy laaj te man waaw te man te man génnoon naa ci benn béréb def benn liggéey boo xam ne dama doon jànkoonteeg ay nit te ci ëllëg sa laa feebar xaw ma ndax njort ni daal fa la waaw njort naa ko njort naa ko tam ci beneen ci beneen boor mooy booru fi ma dëkkee dëkkuwaay bi amoon na ñu ma dëkkandool ñu doon wax ne ñoom seen seen yaram day metti dafa mel ni dañoo siburu mhm. wante du woon dara soj la woon wante demuñu defi test donc doo xam mhm. doo xam exactement dafa sew te dafa gaaw gaawaay boo xam ne doo xam exactement fan lay jugee da njort rek ni ma la gisee ni nga nekk en forme yow nuruwoo moon ko sonn de wala sonnoon nga man léegi maa ngi sant yàlla je en pleine forme <laughs> maa ngi sant yàlla génn naa ci wante dama defe ne tam li ma jëloon euh, sama dose vaccin moo ma ah, xaw a sauvé lool laa njot mhm. ndax man dama jël sama dose vaccin ma teg si juróomi fan une semaine doo di feebar mu mel ni dafa mel ni lu ñëw ci barrière du ma médecin du ma spécialiste ma mais lool laa lool laa njot mhm. parce que am na ñeneen ñu ma xam ñoo xam ne jege nañ ma mhm. dañoo covid mais demuñu woon def seen vaccin te dañoo hospitalisé hospitalisé nañu def nañu perfusion yàgg nañu hôpital te dañoo tëdd ay 10 jours 15 jours minimum te man yàlla xam na ne ay juróomi fan bon une semaine laa tëdd. Mhm. matu ko sax noonu. wante man sama. te douleur bi également taxu ko woon douleur bi metti woon na musuma grippé façon grippe bi. ok mettit bi ngay yëg ak fe ak coono coono da ngay fatigue général mhm. coono boobu ngay yëg noonu doo ko mën expliquer da ngay las-lasi. waaw coono boobu ni ko ni ko lay laa doon wax da ngay loof dangay ngay loof te doo mën sax doo mën sax def li nga daan defaral sa bopp man toog naa ñaari fan yoo xam ne sangu bi du woon sangu ay xëppoo ndox la woon mhm. ndax tayal mhm. tayal sax bomb sa yaram xam nga mhm. loolu dafa doy waar donc loolu moom euh, maa ngi ko doon doog a dund mais man xamoon naa ne Covid da nga koy sentir da ngay xam ne lii bokkul ak li ma daan feebar da ngay sentir ne lii bokkul ak li ma daan yëg te li ci metti mooy sa liggéey sax daf lay freiné non doo mënati liggéey doo xëy man dama feebar rek tëdd ma ah ma woote ne man dama feebar mais man la euh, fi ma amee kii mooy dama feebar jeudi bi vendredi bi ma xëy dem dafi test dama lijjanti lijjanti ba ñu jox ma contact pour ma dem dafi test parce que bëgguma woon sax nekk di di def nii ma toog ñaari fan test yi génnagul woon mais man sentir naa ne loolu la ma ma wax ki may liggéeyal sama jànk bi boo wàccee tey bul ñëwaat parce que bañoon naa moom muy dem ak a ñëw mm-hmm. mu wàll mu wàll waa këram wala moom mu jël ko yóbbu ko feneen mu nekk beneen affaire te bëgguma woon jël responsabilité boobu ma a ko toogal sa kër léegi nag bi affaire yi génnee nag ba mu nekk loolu man xamoon naa ne loolu la woon ba pare léegi na ci laa commencé euh, lu jëm euh, ci prise en charge bi également. Mhm. est-ce que euh, prise en charge bi nekk na prise en charge boo xamante ni bu adapté la woon. bu mhm. gaaw la woon parce que Covid bi quand même ñi muy dal il faut que ci prise en charge bi ñu ci jouer. Mhm. ndaxte warul nekk loo xamante ni nii luy luy xaw a traîner la. parce que war nañu def de telle sorte que aji tawat bi très rapidement mu war a mën a jotaat boppam. surtout que yi muy ñàkku goût yeeg yooyu odorat yi dem ak yooyu. Mm-hmm. est-ce que prise en charge bi euh, vraiment macha allah. waaw côté prise en charge bi euh, am na am na prise en charge euh, ci côté boo ko boo ko waxee sa médecin. Mm-hmm. wala sa docteur bi lay faral di seet boo feebaree mu consulter la moom moo la war a mën a digal nga dem defi test bi parce que comme ni ko monsieur doon waxee sànq. mënoo ñëw rek ne damay sëqat wala dama soj wala dama njorti ne lii la defal leen ma test bi parce que defe naa test yi dafa dafa am na am na lu muy jar njëg bu kawe la te dafay metti ah, maintenant c'est payant déedéet mais dafay cher ci état bi c' gratuit état bi moo koy fay. Ah, mais yow doo fay c' est gratuit. te d' ailleurs dafa am coût. effectivement waaw dafa am coût te information boobu tam foog ñu jàllale ko bu baax que nit ñi xam ne test bi du ñu fay parce que man ñu bëri nee nañ ma ah man de daw def test bi test bi moom aw ma njëgam. man maa leen yëgal ne test bi doo fay. effectivement ko nguur gi moo koy fay mhm. moo tax lépp lu ñuy wax ci Covid bi euh, du euh, question ko nguur gi nga toogal mais jàppal ni nguur gi lépp lu mu débloqué euh, ci koppar ak nu mu mën a toll ëllëg itam dafay am répercussion quand même sur loolu xam naa dina nekk beneen débat mhm. maanaam conséquence économiques yi nga mhm. xamante